saw tour ak saw sant di nuyu mbokki téléspectateurs yi ci télévision Bambey 24 seen rakk seen xarit seen doomu ndey monsieur Assane Lay enseignant historien chercheur ci kanam ecran bi di nuyu nag ah Sénégal gépp àdduna wërëngal képp di kontaan lool ci dalal bii ñu ma dalal ci télévision Bambey 24 ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci lan histoire di mboor histoire nag moo yorom réew ndax dañ ne un peuple sans histoire est un sans sel réew moo xam ne amoo histoire dafa doon togg koo xam ne amoo xorom noonu lañ ko mën a tikkee ah Sénégal nag doon réew moo xam ne dafa am aada ak cosaan loolu la ñu fas yéene waxtaan yéen nan la réew mi tëdde woon laata république di am indépendance di am wala tubaab bi di fi ñëw di ñu coloniser ay royaume a fi amoon mu waalo mu jolof mu siin mu saalum bawal kajoor fuuta ba bundu loolu moom moo ngànkoon réew mi li nga xamee ne tubaab yi ñëw nañu fi nag coloniser ñu daal di jël réew mi ci seen loxo xeex ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ba rëy leen installé fi seen système colonial jamonoy dox ba dem ba def la décolonisation Sénégal am indépendance ay raison am ba tey fii ñu toll tey ñu waxtaan ak yéen nag ci réew yi fi nekkoon yéen fi nekkoon nan la demee waalo waalo mi ngi nekkoon ci peggu réew mi tey au nord dañ ko mënee xool tey fi région de Saint-Louis nekk tey côté boobu moo nekkoon waalo jëm ci embouchure bi au bord de l'océan Atlantique fuuta moo nekkoon fan la vallée du fleuve Sénégal tey fi Podor toll tey jëm ci région maatam loolu yëpp moo nekkoon fuuta tey fan moo nekkoon Kajoor moo nekk tey la presqu'île du Cap-Vert de Dakar jëm si région de Thiès ak une partie de Louga fan moo nekkoon Bawal tey mooy li nga xam ne mooy région de Diourbel laal ci Louga laal ci une partie de Thiès fan moo nekkoon Sine région de Fatick ak la Petite Côte fan moo nekkoon Saloum région Kaffrine ak Tambacounda jëm ci euh, Kaolack fan moo nekkoon Casamance nag mooy tey Ziguinchor Sédhiou Kolda ainsi de suite waaye réew yooyu bi ñu ko amee dafa amoon ay kilifa yu fa daan nekk waalo da daan am barak fuuta am almaami kajoor am damel bawal am teeñ siin am buur siin saalum am buur saalum jolof am buur ba jolof dégg nga am euh, am seen mansa noonu la réew mi tëddi woon du dee waalo ku fa mas sant barak da ngay doon sant mbóoj waaye nag ñetti néeg lañ daan tànn ñetti néeg yi ban ak ban la dangay doon ab loggar wala nga doon joos wala nga doon teejeek ci ñetti néeg yooyu lañ daan tànn barak waaye giño gi moom mbóoj rek ngay doon moo tax la ko dale ci barak bëri caaka mbóoj ba ci barak ma mbóoj Malick ay sa daaro benn barak rek moo ci sant Jóob muy barak kuli mbàbba lu ko waral booba te eh, larax yi sant mbooj dañoo doone gone te jéegi jeex waaye nag ndey mbooj la sant ndax mbàmb mbooj a ko jur mbàmb mbooj bragiri mbajik aram bakkara ko jur ñu jële ko kajoor mu sant jóob dem daal di falu du dee jolof dangay sant njaay bokk ci giño gi surtout ca njaajaan njaay moo tax la ko dale ca njaajaan njaay ba ci buur ba jolof buuna ma jigéen baasin njaay njaay ngay dégg ñaar moo leen rax borom xam-xam yi ne ñëpp ndax buur ba jolof tanoor Fatim Koura Nguy Dieng la sant te fal na jolof it dëgg la ak kii nga xam ne moo di Amadou Seexo bala sant falu na jolof tamit ci buur ba waaye li ci des kenn ku ne ci njaay nga sant kanta kajoor damel la ko dale ci amari ngoon a sobel wala di ci fu njoogu baayam ci 1549 ba ci 1886 bi Lat Joor dee deqale 33 damel yi falu yëpp kenn ku ne faal nga sant waaye mel na Lat Joor rek moo sant jóg accident ba indi Brak Kulimba ba sant jóg nekk Brak ca Waalo nekk exception moo indi Lat Joor aussi mu nekk fii ci Kajoor nekk exception des damel ci géño gi sant Fall dinaa ko wax Ngoone Latir Ndeyem moo sant Fall kayit ndeye mbabbu Mbodj moo sant Mbodj moo tax Lat Joor dégg nga maam bi nga xamee ne waa kër May Sete Ndi Joor ni saay na ñu ne dañuy fal damel mu doon jigéen sant Fall ñu ne déedéet nga sant Diop daal di jël Lat Joor teg ko ci digg bi mu toog fi euh, à la place de sa du dee Buur Siin moom faluñu ci Guignon doonu système paternel. waaye maternel la ñoom neen la ñuy fan fal ab gellawaar ngay doon képp ku ñu mas a fal siin teg la ci kaw jal bi tëggal la junjung gi jaraaf wax ak yow ak bisik ak farba ak lingeer dafa fekk dégg nga maam ab gellawaar nàmpal la la ko ca dale ca may sa wàlli jon ba ci buur siin mayekoor ba ci actuel buur siin bii ñu fal bu yàgg tombaay di ñoxo baay faat jéen gellawaar a lay nàmpal moo tax danga nga dem siin da nga gis buur yu sant Juuf gis buur yu sant Ndong gis buur yu sant Mbóoj gis buur yu sant Njaay gis buur yu sant Fay ndax waa waal joojo ñilaan Njaay la sant sambalam du njilaan Njaay la sant bur seen Mbake Ndeb Njaay la sant waaye doo ñëwee ñoxo bàyyi mayaan ñaan juuf la bu ko ci laas mi ci jaajël bu juuf la bur sin mayikoor juuf la ku mandoo fen famaak juuf la ku mandoo fen fandeb juuf la nga xool ne ñi sant fay waagaan Kumba Sanjaan fay la sant sanu fay la sant ah euh, Boursine Salmon fay la sant donc day wane ne ñee meen la fal man nga du sa bàyyi déeb géwél sax ci waxin wala nga doon keneen ak noo mën a sant rek doon nampé ci meenu gellawaar bi am nga droit ci pouvoir bi waaye doo doon gellawaar moom doo moom jaxaaw doo falu Boursine Saalum it noonu lañu daan fale saanub dangay doon gelawaar sëtu ci kee teneen joom ngay sanu kii nga sëtu ci maan fay wala boroom xam-xam yi ne dangay ngay sëtu ci sëru mbegaan nduur bi muy ndumbe nduur ne ménge ménge jaata ñoom it am nañu buur yu sant Fall ndax Salmon euh, Samba Lawbe la sukk sore jogam Fall la sant faxa Fall la sant buur Saalum la seen yaay tax ñu falu fa am nañu buur sant Diouf Fodé Diouf Semu Nguy am na ñu sant Mbóoj Makumba Mbóoj Sengaan Jogop ñooñ ñëpp Mbóoj lañu sant Dengaam Gédéel Mbóoj ñaawut Sadio Ka Mbóoj la sant waaye seen ndey dañu gellawaar am nañ buuru sant ndaw bale ndungu xuraja ñaxana ndaw la sant ndeyam dafa doon ab moo tax mu am droit ci nguur gi am nañu aussi yu sant Euh, Mbóoj wax naa ko am na ñu sant Diouf am na ñu sant Ndaw am na ñu sant Fall am na ñu sant Diouf donc loolu tey wane na Sénégal dañoo amoon seen façon yuñ daan fale buur euh, wax naa Kajoor wax naa Siin wax naa Saalum wax naa Jolof wax naa Waalo alors nag doo dikkaatee nga xool ne capital yi dafa amoon ay capital ndax buur bu ne da nga daan am foo sanc mais dafa am capital boo xam ne kenn du ko changé ku ñu mas di fal ca waalo gi ma wax léegi dañu lay yóbbu njurbel dëkk bu ñuy wax njurbel moo doon capital bi falañ lay fale doo dikkee nag man ngaa transformer capital bi yóbbu ko na am na buur yóbbu njànj am na ñu yóbbu xuma lu dee kajoor da ngay ñëw mbul falañ lay fale nga wëlbatiku nag fu la neex nga dem am na ñu nekk ngigis am na ñu nekk xàndan am na ñu nekk sugeer am na ñu nekk euh, jàmmañaan du dee bawal làmbaay mooy capital bi feneen lay fale du ko defee nag làmbaay ngay dëkk waaye am nga yeneen kàngam yooy teg yu demee na lamasaas bay bayaar buurum ngoy buurub gaat buur ndimaag dégg nga doon ay ndomba tànk yooy joxe du dee jolof pour ñu fal la dangay ngay ñëw céng ñu fal la fa fa ñuy daje waxtaan daal di koy dégg ceeng li ko indi dafa ci njaay ji bi ma amutee kër ñu ne nguur gi yàgg na doomu buur yi war nañoo am kër nañ leen seetal ñu benn sëriñ daal di bind ñetti téere ne bi nañ koy takk ci nosab giléem bi ci bakkan bi bii ñu takkal ko ko ci dënn bi bi ñu takk ko ci genn bi caw ko bi yar fu giléem gi taxaw rek foofu mooy doon capital bi ñu daal di dox giléem gi dem a dem ba benn instant mu ne nee nañ taxaw na yàng mu ne yang ba mu yang joojee ci rek ñu ne giléem gi dee nga fi ne yang ñu ne seetaan leen ko rek moo indi ture yang-yang looloo tax capital bi mujj yang-yang bi giléem gi ñëwee ba ci garab ak sing nag mu daal di jël bopp bi teg ko ci garab gi daal di yës ñu ne fii la ñu daal di gor ñu ne ci sing gi la ko defee moo indi céng war xoox dëkk bu am solo la ci jolof ndax li ngeer koo baarum ndaw bi ko buur ba jolof biram jéemee kumba kilifa ak buuri takkee mu dem gellowaar dafa ñëw fekk fa buri jëlee ndaw bu nu jëlee ndaw jóge génneen dëkk jolof dem jolof jolof mu ne mënumaa wujjee moom takk fos yi dem bi muy romb nag la ko am ñu ko téye na ko doo dem waxal la leen miti mu wax la ko miti ñu waraat ci fos yi bëgg a dem fos yi daal di bañ fosu bañ dañ naan dafa xoox ñu ne war nañu fii fos yi daal di xoox loolu moo indi war xoox muy dëkk yu am solo lu ne jo euh, kajo euh, siin capital yi bëri na Mbiseel nekk na capital Njongoloor nekk na capital Mbimoor nekk na capital waaye capital bu mujj bi nag bi nguur gi taxawee ba taxaw ba taxaw jaxaaw la doon waa si la fay ko sanc ci 1237 di Gelawaar bu dee Saalum seen capital kawoon la doon loolu dafa doon réew yoo xam ne dafa ngankoon comme dañuy def introduction ci histoire fas yéene di xel di waxtaan ci télé bi nit ñi di seetaan dafa doonoon loo xam ne tey rek ma jaar fi def introduction ba ñu xam ne wax nañu réew yi fi amoon ak capital yi ak niñ leen fa euh, sose bu ko defee nag du ñu ci duggee ci histoire bi yeneen beneen émission dinañu ko yi nag ba dugg ci buur yi ak seeni relation ak seeni jëflante di wax ne Sénégal réewum jàmm la yàlla nañu yàlla dolli jàmm réewum taraanga la réewum naataange la ndax liy indi jàmm cim réew mooy wax lu rafet ku gis lu ñaaw sa moroom nga bañ koo wax ndax koo xam ne duñ la wax doo waxalee nit lu ñaaw xool ne doo wéetee duñ la waxoon lu ñaaw du la neex doo xasee nit duñ la xasee du la neex kon mbub mu ñaaw moo solo nit rek xoolal ne duñ la ko sololoon loon nga maam du rafet ci yow kon yàlla nañ yàlla dolli jàmm yàlla yàlla def sutura def jàmm biiw ñaan nag ah,